salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki julli ñi mbokki taalibe yi euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, fas yéene rek def benn vidéo bu gàtt boo xam ne dama siy fas wax suma xalaat si benn analyse boo xam un certain sous journaliste nommé El Modou Gueye nekk Touba moo ko def euh, di wax si situation Touba ne dafay sensibiliser waaye si biir loolu mu wax kàddu yoo xam ne dama jàpp ne. Euh, war naa ci wax suma xalaat ginnaaw bu ma ko déglu muy ñetti kàddu yoo xam ne dama ko jàpp mu wax ne Touba moom rek la dégg mu muy wax dégguñu feneen lu jug waa Touba jug ne dañ ñoo bañ ñooy kan bañ wan ñoo bañ wax itam ne seytaane bàkk moo taxoon suñu borom génne ko àjjana donc di ñetti wax yoo xam ne nii dama si def jàng waaye bu njëkk laay li may njëkk wax mooy yow naka nga ne da ngay wax ak waa Touba da ngay sensibiliser jël photo Serigne Touba tek ci sa ginnaw jël musique tech déjà tu fausses dès le début ta communication wala sa sensibilisation parce que Touba bo leen ni sensibiliser li ñëk moy da nga wara am worma ci serigne bi am worma ci serigne bi àndul ak jël bi tek ne da ngay live tek musique parce que serigne bi ak musique ànduñu benen bi moy nga ne Touba ñoom rek ngay dégg ñuy wax Touba ñen nga fa dégg ñuy wax mais Touba dafa am des voix autorisées Touba suñ Bass Abdou Khadre bu waxul suñ Mountakha bu waxul wala suñ Mountakha waxloo kenn keneen ku fa wax tu parles comme un citoyen sénégalais dara xew ci sa deuk ngay siy wax sa xalaat lolou ken ku ne am na sañ-sañ bi yow yaangi non da nga tok am sañ-sañu tok wax sa xalaat kon bayil na bàyyi leen di wax ne Touba ñoy wax est-ce que ceux qui sont dans les réseaux sociaux est-ce que ñëpp Touba lañ deuk est-ce que murid yi wax yëpp Touba lañ les sénégalais de la diaspora les mourides qui sont au niveau des autres régions ñooñu bu ñuy wax da ngay jël lépp comptabiliser ko ne Touba wax Touba am nañ droit wax parce que yow ki nga war a waxal waxoog moom bu fekkee da ngay sensibiliser docteur Abdoulaye Bousso nga war a waxal moom mi nga xam ne centre des opérations d'urgence sanitaire bu Sénégal toog si télé ne li xew Touba il y a une part d'irrationalité mais kooku kay bu demee wax loolu. lan moo tax murit yi ñoom ñi nga xam ne Serigne Touba lañ mës a gëm Serigne Touba lañ gëm ne moom li ñuy am yàlla si loxo Serigne Touba la ko teg encore une fois amul benn murit bu mës a taxaw wax ne Serigne Touba li mu am yàlla mayu ko ko liñ gëm nag Serigne Touba bind ko parce que ñun lu Serigne bind gëm nañ ko mooy li ñuy jariñ àdduna ak àllaaxira suñ borom si loxo Serigne Touba la teg moo ko bind kenn waxalu ko ko kon am nañ sañ-sañu bu mbir xewee Touba. parce que Touba bi muy dem ba vingt ñëpp gëmoon nañ ne day exploser suñu borom defal ñu sutura muy wàcc ba deux bañ naan zéro kaa fa am waaye murid ji dinañ sant murid ji nag seenu sant Serigne Touba la ñuy sant seenu sant Serigne Touba nag boo si bëggee génn santu yàlla dangaa ngaa ñàkk xam-xam da ñàkk xam-xam ndax yàlla sax moo wax ne ku santul doomu aadama dooma sant kon Serigne bi bu ñu koy sant si lu ko suñu borom defal la ñu koy sant loolu dafa war a leer murid ji du ñuy jaaxil ay boroomi xam-xam a fi ne. jàng xam-xam jàng alxuraan xam li yàlla wax si lu li wax si lu dëgg xam li yàlla wax si safara xam li yàlla wax si bokkaale kon bu bokkaale amee yow yaa déggul wax waaye amul benn murid bu bokkaale sant gi ñuy sant tam nga ne seytaane bàkkoo taxoon ñu jële ko àjjana ñu jële ko àjjana wala suñu borom toroxal ko loolu ban corrélation la am ak li xew Touba ban bàkku nga gis tuubaa yow kay li la li nga war a wax wax ko rek mooy jërëjëfe sëñ Tuubaa gi ñuy wax wala ñu naan jërëjëfe sëñ Tuubaa si nangam loolu nga wax ne du yoon parce que da nga wax ne sant leen yàlla mel na ñun ñu dañoo santu jàlla sant yàlla si lañ dëkk sant yàlla mi ñu boole sëriñ Tuubaa si lañ dëkk si la murid yi dëkk bul jaxase murid yi ak àdduna bi te mënoo ko sëñ Tuubaa dafa waxoon ne Tuubaa jërë na fi yàq bàyyi leen ak yàqule nit dina wax ba yàqoo fa waaye kenn du foo wax ba yàqe fa kon yooyu ngay wax melni wa tuba Touba ay nit wala duñu ay wala wala duñu ay ñu gëm yalla wala dañuy bakku ci kërmu suñu borom lolu amul sëñ muntaha mi xal général des mourid mo taxaw wax ne Serigne Touba fagu nañu lepp demal nga wax ko ne ko wërta wax lolu demal nga wax ko lolu bu fekke da ngay wax ak mourid ji muntaha moy premier mourid mo wax lolu kon bayi len wax yooyu ngeen wax encore une fois Touba la fa xew bu xewon fenen nit nit ñal doxale non nit ñi yalla lañu sante diko jaar le Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul lolu moy deug loolu moy deug bayil Touba chaque jour nga def fa lo xam dañuy wëlbati ko ngay genn di baalu yow rek yaay journaliste bo xam ne jour nga def Touba après genn di baalu pour lan pour lan bu fekke dafa am lu la neexul Touba mais gennal nga wax ta nga bàyyi Touba ngay top chaque jour di len attaquer parce que ce que tu as fait attaque la parce que da nga len a wax na wëy suñu borom bu fekke da ngay bakku lam la moyen mu ñewat wonal kat li man mako moy la xew Touba ñepp xam nañ na suñu borom la sopp suñu borom nak sing baham silo li ko sëriñ tuuba liggéeyal fay nako ba lepp luy am tuba lepp lu fay dugg lepp lu fay genn lepp lu fay am silo loxom bobu lay jaar loolu kum neex geumal kum neex weddel suñu borom mi meuna may seytane lu way def lu bon danaka mu am sa ndax mom mokay influencer bam koy def waxuma la nit ku ko liggéeyal ba am mom kon lillahi wa rasuli bayi len touba gi ngeen wax dañu dañoo bëri wax dañu bokalé nañ sant yalla Touba ay nit a fa dëkk ay jullit xàq na fa dëkk ay jullit xàq na fa dëkk loolu mooy dëkk encore une fois maa ngi jégaloo ñi nga xam ne doon nañu seetaan di wax na rek ne eh, liñ si jublu rek mooy képp kuy wax ci Touba itam li ngay wax na nga ko xoolaat di ko analyser parce que ay citoyen fa dëkk ay jullit fa dëkk ñu yaakaar Serigne Touba fa dëkk du duñu ay jaahil duñ bokkaale xam nañ li yàlla am xam nañ li suñ tubaa lim am yàllaa ko ko may loolu kenn wérantuwu waaye sant suñ tubaa nag moom ba ba ñuy faatu ba mur ji di faatu ñëpp di faatu si la ñuy dëkk li waa ji naan bu sant sëriñ tubaa bu dee rey yàlla nañu rey sant sëriñ tubaa bu dee rey yàlla na rey murid yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu